moo toftal ci juróom-ñaari waxtu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar yi marax yi ak ponk yi ci gën a fës bàyyi it ndéggandiku lañu bàyyi Boubacar Seye ki koy layool rafetlu dogal boobu la mu ca teg nee na daal euh, loolu muy tëye gi ñu tëye woon Boubacar Seye ca kaso ba matu ko woon ndaxte euh, dafa gis ne ab client am da doon sàkku rek ñu indi ay leeral euh, ci koppar yi nga xam ne mbootaay gu mag gi di Union européenne def na ko xeex li nga xamante ne si moom mooy mbëkk mi keneen itam ku yoon tegoon loxo bàyyi ko di soxna Aminata loo Dieng ki fa nekkoon ay jamono euh, jëwriñ bu ñu denk wàllum tourisme euh, bàyyi nanu ko moom itam ak rakam bu ñu naan Moustapha Lo ñu ne ñaari weer yu dul tëdd la leen tëj ba noppi itam alamaan leen euh, lu toll ci ñeent ci ay junni daañu dellu siwaat ci biir xibaar yi ak na mu gën a yaatoo beneen ponk mbokk yi muy ca diwaanu Mbuur Géej ab ul moo fa ñëw indi fa ay yàq yàqu yàqu fa ay kër waaye itam ay gaali Looco loolu nag ke diwaanu Mbour Géej askan wa lan wax rek moom daal neenu liggéey ba ñu doon amal ca tefes bu Saly moo waral lu ni mel ñu ngi sàkku sax nag ci euh, kilifa yi ñu wutal leen feneen fu ñu nekk ndongo yu daara ju kawe ja nekk ci ndax géej ñoom nag dañoo daal di euh, def ab euh, ñaari pan yoo xam ne dañuy def loolu ñu naan ngénte tubaab maanaam lekk te doo fay waaye foofu ca daara ju kawe ja ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi tëj nañu restaurant mooy fan yu lekkee loolu nag euh, neexul ndongo yi ba tax na sax ñu wàcc ca mbedd ma amal ab doxub ñaxtu jàkkaarloog takk derrière juróom am ci ay gaañu gaañu euh, kenn ka euh, xaw sonn lool jamono ji ñuy waxee lu jëm ci wàllu mbas mi yeneen jàngoro ñu ngi koy tudd ci réewum Sénégal bokk na ca grippe aviaire gi jàpp njanaaw yi waaye itam fièvre jaune ñu gën ko xam ci pays ci wolof lool sax tax na ba nu samp laaj naka la ñuy def ba mën a jànkonteel ak yooyu lee jafe-jafe may Maïmouna Ndiaye dénk na euh, microm ki nga xam ne moom moo jiitee SNEPS mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee xibaaru marax yi mbokk yi nanu ko junjee noonu lañu koy doore bàyyib ndéggandiku lu nu mujjee gàll ci loosu Boubacar Seye ki ko layool rafetlu boobu lee dogal maître Amadou Diallo la mu ca teg mooy euh, matu ko woon moom njiital Horizon Sans Frontières ñu koy téye bàyyib ndéggandiku bokk na ca la mu wax nee na client ngam la mu def du lenn lu dul laaj ñu indi ay leeral ci koppar yoo xam ne mbooy mbootaay gii di Union européenne def na ko ci xeex lu jëm ci wàllu mbëkk mi ñu teewlu ay Ibrahima Kane moo ko taataan ànd ak Younous Diatta ci caméra bi a ko parce que dafa feebar euh, le fait que ñu bàyyi ko muy muy yaakaar ni peut-être que c'est pas trop que dina mën a dem faju parce que Boubacar Sèye ñu ko dugalee prison euh, euh, wërgu-yaramam dafa dafa dafa gën a aggravé sa son état de santé c'est véritablement aggravé comme bàyyi nañ ko ñu ngi rafetlu mais waruñu fi woon yegg dans un état de droit citoyen bu jóg simplement mu ne état yow xaalis bi ñu la jox xal xaalis yow bi nga jot pour ñun foo ko dugal loolu pour loolu rek ñu lay téye ñu lay tëj prison loolu kenn war a ko mën a nangu moo tax maa ngi rafetlu quand même mobilisation sénégalais yi mobilisation citoyen yi nga xamante ne quand même peut-être ou certainement sax loolu moo tax ñu bàyyi ko tey parce que tamit gis nañu justice bi quand même il faut parfois mettre la pression te loolu dans un état droit rafetul donc comme nu mu ko waxee euh, depuis le début de la procédure mooy Sénégal dañuy seetlu ni eh bien seen citoyen dafa mel ni amuñu droit exercer seen liberté d'expression amuñu droit exercer son droit de le droit de regard sur la gestion des ressources de ce pays là. keneen ku yoon tegoon loxo te mujj ko bàyyi muy Aminata Lo Dieng moom fi nekkoon euh, jëwriñ bu ñu denk wàllum tourisme jamonoy euh, président Wade bàyyi nañ ko gannaaw ba nu ko téye ab diir moom ak rakkam ji naan Moustapha ñaari weer yi kaso yu ñu tëdd lañu leen daan ba noppi itam gàll ci seenu euh, ndodd ñeenti junni ci ndàmpaay wala mook ki fi nekkoon jëwriñ lañu ko euh, tuumaal rek nee ñu daal wala bokk la ñu ne da koo def maanaam euh, mooy ñàkk a wormaal ab liggéeykat ñu gën ko xam ci outrage agent waaye itam couvre-feu beeg état d'urgence bi sàmmawuntewut ak nanu ko euh, santaane ki nga xam ne itam moom mooy rakam moom ñàkk a yor permis ak itam couvre bi ak ñàkk sàmmonteeg nanu ko santaane kii di ko la di leen layool maître Clédor Ciré Ly rafetlu na bàyyi gi nu ko bàyyi waaye nag ne euh, yoon ba tey am na lu des lu mu waxul ci mbir mi ñu teewlu ko kàddu yi ki ko taataan di Fatou Bintou Konté ànd ci ak su Barou waaw kontaan nañu ci li nga xam ne que tey ji borom kër la dina dem ci njabootam te lii lépp lu ko fi indi moom moo di que doomam bu am fukki at ak benn moo xiifoon mu koy wutali lu mu lekk ci kaw loolu ba muy dellu si fekk heure bi jot na ci li ñu wax fukki minute ak juróom weesu na ci diir bi nga xam ne moom lañu waxoon ci couvre-feu bi waxtaan naa ñoom ñaan na leen bàyyi woon nañ ko sax ba mu ñibbi ñu xëyewaat jëli ko li tax ñu xëyi jëliwaat ko alors que bàyyi woon nañ ko loolu xëy na moo li nga xam ne ko moom moo ñuul ci biir soow bi léegi nag sëfal nañ ko yit sëfal ko ne dafa ñàkke teggin gendarme yi wante tey ji kenn mënu ma wax kaddu boo xam ne que Aminata jël na ko jëmale ko ci gendarme yi dégg nga te xam ne dafa di loo xam ne dafa leen di toroxal man de li ma dégg du moom bu fekkee fa boobu nga xam ne dafa jógoon pour wuteel yi lekk doomam loolu lañ ko jàppee foofu nag ci wàllu xam-xam dañu nekk lépp loo xam ne que euh, dafa di xaw ma état de nécessité lu ñu koy waxee xëy na dina am ku ko mës a forom fàcce moom moo di dafa da nga nekk ci situation boo xam ne yow wala nga am koo xam ne que daf la jege. wala n'importe kenn waaw yitte boo xam ne que non non non loo xam ne que yoon daf ko tere te yow bu fekkee ne jéggi woo yoon la muy yàq moo ëpp foofu yoon may na la nga jéggi ko donc loolu moom moo di état de nécessité tey ji sa doom xiif na te yow guddi gi guddi guddi dafa gudd nga war a jóg di ko wute li lekk est-ce que loolu mënul justifier que yow nga jéggi yoon loolu yoon maye na ko tribunal nag nanguwul ci loolu lu tax nanguwu ci bu bindee dinañ xam lu tax mu war a mën a nangu que ndey war a bàyyi doomam mu dee xiif aywa bu nu jógee ci wàllum yoon ak euh, yoonal ñu wax itam ci leneen muy la xew ca cité Bata ñaari way dencante euh, seeni at nag taxu ko euh, sori lool lañu fekk foofu ca seen appartement ñu ñàkk seen bakkan ñaari way dencante yooyu yëpp dañoo faatu fi mu ne nii nag ne ñu xamuñu lu waral faatu googilee police nag daal dinay dem ca bërëb ba def na itam la ca war te itam ne ñu ibbi nañu ab enquête dinañ ci dellusiwaat ci ni mu gën yaatoo xibaar bi ki ñu ko baax baaxee di kenn toggal ca diwaanu Tëngéej di Ousseynou Thiam. beneen ponk itam euh, muy foofee ca diwaanu Mbour juróom benni ndaw bokk itam ci kuréel gi ñu dippee euh, Mbour justice ñoom it dañ leen a teg loxo ndax ñoom dañu doon amal janoo ak taskatu xibaar yi di ñaawlu rek patt ki nga xam ne euh, kilifa yi nee nañu ko patt ci condamnation maanaam daan bu nu teg maire Mbour muy fàllu la ci mbiram place publique yi ñu ne benn at ca gannaaw ngi noonu maire Mbour dañu ko daanoon tëdd ñaari ati yoo xam ne euh, ñetti weer yi da koy tëdd ak itam ñaari million ci euh, ndàmpaay nee ñu boobaak léegi moom euh, Fallou la ma ngay wéy di doxi soxlaan loolu nag tax na ñu meroon ba bëggoon na janoo ak taskatu xibaar yi waaye mbir mi àntuwut ndaxte yoon da leen teg loxo ñoom juróom benn ndaw yooyu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo nu baaxee bi la xibaar ñu des ba sax ba tey sax ci diwaanu Mbour Géej ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye maa ngi leen koy wax ci bopp xabaar yi ul ba euh, moo fa indi ay loraange yàqu yàq yi soxal na ay kër naka noonu ay gaali loo co euh, ña nga xam ne nag ñoo ca loru ne ñu la ko waral mooy liggéey ba ñuy def ca tefes bu sali ba tax na ñu sàkku ci kilifa yi ngal la ñu utal leen feneen euh, fu nu mën a nekk foofu ca Mbour dañ ci yànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye dañu mbalit mi dafa bari si géej bi mbalit bi nu mu bëree si géej bi nag tey ah du benn fan moo koy dindi ñoom tamit fraternité ak yeneen association bés bu nekk dañuy jéem a fort ñu ne woon nag léegi dañuy jël ay xale tàggat leen tàggat leen nag régulièrement ñu demee ba xam lan mooy plongée sous-marine dinañ mun dem di jëli mbuusi plastique mbuusi plastique itam ñun dañ koy utiliser di ci def pétrole di ci def énergie am na société yoo xam ne dañ koy kii sa costume daf koy utiliser pour def énergie donc day fekk li nga xam ne laay liggéey si lu raw loolu tey bateau yi nga xam ne dañ fi nekk am nañu ay navigateurs yu bari yu nekk ay xale yoo xam ne dañ doon liggéey si gaal yi mais mosuñu jàng plongée sous-marine dañ leen di tàggat ba nga xam ne ñu yàlla dara su amee ñoom mun nañ leen jëriñoo ñu dem jàppale nit ñi te itamit sociétés yu mag yi fi nekk dinañ leen soxla suñ leen defaree formation bi proposé leen ñooñu ñu jël leen boole leen si seen équipage mun leen euh, jàppale ñu créer ay emploi foofu dinañ créer emploi vert mais en même temps dinañ créer emploi pour le ministère de l'énergie et du pétrole érosion côtière bi nag def di loo xam ne moom euh, def di lu naturel dafay am waaye seetlu nañ fu mu nekk nii nekk mangrove bi suuf saa koy commencé jël te suuf su ko jëlee rek dafa nar a yàqu suuf si daal mi ngi commencé di gagner zone bi il faut ñu xool nag lañ koy wàññi moo tax ñu nar a war a reboiser suñu reboiser yi tamit ñu xaw ko ne mais également beneen côté bi nga xam ne mangrove bi du fa sax ñu def ay xeer pour que géej bi bañ a avancer trop du ko arrêter mais au moins dina ko ralentir. aywa ñu wax ci beneen ponk ak juróom-ñetti kaas maanaam juróom-ñett ci ay néegu ñax yoo xam ne dañoo tàkk ba jeex naka noonu ak jur dund ay koppar yeneen i euh, mbir yoo xam ne askanu saare alerte ñoom la ñu dencoon ca seen i euh, amaana waxande wala itam lu jëm ca sàq ma bokk na ca lanu wax ne moom moo ko waral muy ak lakk gu woo xam ne moo fa amoon mitti lool dañ ci ànd ak Abdoulaye jàll toogal groupe Futur Média ci diwaanu Fuladu. lakk-lakk bu méttee métti moo takk ca saare alet di dëkk kaw bu bokk ci goxu Ndorna biir département bu Médina Yoro Foulah juróom-ñetti néeg ay dund ay njiw ay yére ak yeneen bagage yu sew sewaan la safara wa lakk ba ñu jeex tàkk tàkk tàkk yu bari am na fi lakk yàkk yu bari am na fi comme lan ak bagage yi gerte yooyu ak seen yére yi ak seen xaalis yëpp lakk nañ foofu huit huit huit case moo lakk fii safara bi ci néeg bii la jógee après mu dal ci kaw yi néeg yi des. Ça a brûlé. beaucoup de bagages qui se brûlent ici. Il y aussi des animaux, il y a des arachides, aussi des jabis, on nous a perdu, aussi des extraits et des... Il y a beaucoup de choses kay. askanu Saare Allet jot nañu lakkale lu jege millions ci suñuy koppar. Et l'argent aussi, yaa y a beaucoup de l'argent. On nous a perdu, c'est aussi des extraits et des il y a beaucoup waa Saare Allet ñi ñàkk daanaka lépp li ñu jële woon ci seen liggéeyu mbéy mi weesu ñooy sàkku ndimbal ci nguur gi ak ci képp ku leen mën a taxaw. kanaan ñu sàkku ci nguur ñu jàppale ñun ñu ñu war a jàppale ñu jàppale ci ci loolu taxaw ci loolu jàppale ñu ngir yàlla ak yenente bi loolu laa ñaan nguur nguur bi. fii Saare alet Saare Allet. département Médina Yoro Foulah commune de fàttali ne ci ay bés bi weesu ca Mampatim beneen lakka-lakka moo fa jotoon a lakka juróom-ñaari néeg ak lépp li woon ca biir néeg yi le fi ci du dañoo seetlu ne lu gën koo bëri ci lakka-lakka ak daa yi fi xew yépp ci noor bi lañ fi faral di xewee moo waral aman fi ab campagne continue ngir ñaax nit ñi ci wàllu daa yi ak lakka-lakka yi war na fi mën a am solo lool Abdoulaye Diallo ñu sant la bu baax a gërëm la doxantu ba université euh, Gaston Berger ba nekk ca Ndar Géej foofu nag ndongo yi ñoo fa tàmbali woon ñu naan ngénte tubaab dugg ca euh, bërëbu euh, lekkukaay yi xewlu te doo fay loolu nag tax na ba kilifa yi ñëw daal di tëj yooyu les bërëb ñoom ndongo yi mer ba futt wàcc ci mbedd mi janoo ak takk der ya gis ngeen ko taalip na ak itam jàmmaarloo bu mujjee ci juróomi doomu aadama yu ci ñàkk seen i bakkan Ousseynou Diop ak Habib Seck ni kenn sax xaw naa ñu seetaan euh, bi. étudiant yi université Gaston Berger bu Ndar daal di bari waat nationale numéro 2 bi. fii na jàmbaarloo bi taroon na lool ci diggante ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi ak force de l'ordre yi juróom-ñeenti waxtu gendarme yi ñëw nekk ci place bi waaye nag étudiants yi dañu mujj taal ay pneu sànni ay xeer jàmbaarloo bi taroon lool ñoom nag li ñuy ñaan mooy ñu ubbiwaat restaurant yi ginnaaw bañ ko tëjee ca ba ñu déclaré ñaari fan yoo xamante ni ay journée sans ticket la. préféré tey utiliser euh, la voie de la force te tey na tey aujourd'hui quand l'essentiel est menacé s'opposer devient devoir tey li ñu koy xamal di ko wax président de la république di ko wax ministre de l'enseignement supérieur de la recherche que nañ jël seen ay responsabilité ndax tey jii nii national bi duñ fi wàcc tant que tëjuñu restaurant yi ndax duñ nekk ci biir université bi tey te duñ jox nit ñi ñu lekk waaye waajur ci biir këram même bu mënee ay doomam du leen tere ñu lekk lool mooy li nga xam ne li gën a ndaw loo xam ne directeur bi tey war nañu koo defal tey nag duñ wàcc fi tànk que restaurant yi ubbi wuñ jafe bii doon dox ci diggante ñi di kilifa yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar ak étudiants yi ndaxte dañu gis mooy journée sans ticket yi ay jafe-jafe yu mag la leen indil ci seen jàmmarloo ñoom gendarme yi ak étudiants yi nag tàngoon na lool ay waxtu ñoom étudiants yi di sànni ay xeer taal ay pneu waaye nag ñi nga xamante ni ñooy gendarme yi itam doon riposté ak ay gaz lacrymogène lii andiwaat beneen jafe-jafe ci université Gaston Berger mu ndar ndaxte ku nekk xam na ni caatum atum 2018 Fallou Sène nii lañ ko fàtte woon mu mel na kon war nañ ci indi saafara ca na mu gën a gaaw balay béy di wéy mbuus Ousseynou Diop ñu sant ko gërëm ko doxantu ci diwaanu Thiès hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène foofee xam ngeen ne am nañ fa bërëb bu nuy faj ñu amee jàngoro ji di coronavirus la ñu ne mekku mooy limub ñu koy am ña ngay yokk ñu ne diggante gaawu jàpp dibeer juróom eh, ci ay bakkan des nañu ñay faj itam mbir mi ëpp na leen doole ña ngay woo askanu Thiès ñu gën a xoolaat eh, defaraat toogin wa ca diwaanu Thiès kaay Cheikh ak Sey Latif doxantu nañ ci yenn ci seete yi ñu gëstu bi salle bu mag la ñu jekkalaat jëf ci ay caméra de surveillance dëndale ko ak salle bi nga xamante ni fi la ñi am coronavirus tëdd kii di professeur Madoki Maguette Diop jiite centre de traitement bi mi ngi wanale ak way feebar yi ak tawat ji nu mu jéggee dayo fii ci centre bi. Euh, là on le surveille avec la caméra. vidéo surveillance. ñii tëdd nii seen jàngoro yi dafa gën a jéggi dayoo. ils sont tous fatigués ces quatre là. voilà mais les uns plus que les autres quoi. tëdd nii moom dindi ngeen masque ba pare. non non ngay xeeñ seen dënn daf leen di fàtt te loolu moo gën a graaw si euh, feebar di dugg si biir appareil bi kii oxygène bi moo nekk nii sa mira central quoi c'est au niveau des poumons que ça se passe na ay mag ak yi ndaw on a de tous les agents CTE bi fi muy tàmbali si deuxième vague bi dañoo euh, adapté woon def lal pour cas grave yi quinze lal yi dafa fees chaque fois dañuy am liste d'attente week-end bi am nañ cinq décès ba léegi am na ñoo xam ni pour ñoom gëmuñu corona dañuy foog ni sax ñun dañ ko inventé nit ñi duñ takk masque nit ñi duñ respecté mesure barrière boo demee ci marché bi nit ñi lu leen neex la ñuy def te loolu yëpp lu ko indi mooy nit ñi seen bopp ñoo gëmul feebar bi nanguwu ñoo protégé wu. bu la neexee nga bañ a mais vraiment boo xamee ne boo protégé wul euh, doo ko lor sa bopp rek da nga lor sa bopp loraal ak keneen ak keneen ak keneen. wax dëgg yàlla pour ñooñu sax nga war a mën a protéger wu. ñi ñu fekk ci salle bii de ñoom daanaka ñoom ñooy toppatoo ñi am tawat ji waaye nee nañ ñoom de ci ay jafe-jafe lañ nekk. parfois lekk yi ñu wala soit ci côté personnel bi. ñu ngi fi depuis le 31 avril. ndàmpaay yi moom gënuñu ko jot depuis mois d' fii ci diwaanu cees de mbas mi mi ngi wéy di fi indi loraange loolee tax na waa kër docteur di sàkku nag ci askanu cees ñëpp jóg ngir ñu mën a xeex jàngoro ji di coronavirus. ba tey ci wàllu wérgu yaram Cheikh jamono ji ñuy waxtaanee mbas mi am na yeneen i jàngoro yu fëgg ba dugg bokk na ca loolu wolof naan pays tubaab gën ko xam euh, ci fièvre jaune ak itam jàngoro bi jàpp njanaaw yi euh, lu ci mel ni grippe aviaire ñoom ñëpp a ngi wéy di defi tojaange euh, moom pays sax ñi ngi naan am na ay bakkaanu ci rotagum lu ci mën a am Maimouna Ndiaye dem na doxantu ko xam-xamam màcc jëm ci wàll wi moom la ñu dénk bërëb bi di SNEIPS ñu teewlu gëstu bi. fièvre jaune grippe aviaire ak coronavirus lii di ay feebar yi nga xam ni fi mu toll nii tiital na réewu Sénégal situation bi bettul benn yoon ki nga xam ni mooy yëngatu ci wàllu wér gu yaram. bu fekkee ne yor nga bébé bu amoon 9 mois à une certaine période bu fekkee da nga waroon def rappel période boobu yëpp gisoon ngeen fii Sénégal pratiquement amul woon ñun ñi nga xam ne yoroon nañu ay doom yu toll ci loolu aussi loolu lañu gisoon donc ñun lii parce que boo vacciné wul lii xew tey jii war naa tax nag ñu samp ab laaj ci suñu politique de santé fii ci Sénégal. boo nee ma am naa par exemple ñaata district sanitaire toll juróom-ñaar fukk ak juróom nga ne ñaata poste de santé laa am ñaata case de santé laa tey da ngay am dem ay zone yoo xam ne ci zone zone zone zone zone Matam bi. xam nga wala zone Tambacounda wala zone Kédougou da ngay gis ay benn poste de santé boo xam ne village yi dinañ ko sorio lu mat presque ay 60 kilomètres. te la plupart sax ay nomades la ñuy doon maanaam pël yi nga xam ne dañuy màngaan bi toog benn place xam nga ñooñu seen doom war nga leen van a vacciner nan ngay mën a def ba xam ñooñu période boobu fan la ñu war a mën a toll pareen saa yi sax bu dee dañuy voyage dinañ xam période fan la ñu doon nga jox leen carnet leen thème def mu am ay relais yoo xam ne ñooy def loolu mais tey jii su fekkee ne loolu amul dafay poser problème. jiital SNEIPS moom di dalal xel yi te naan kat fi mu toll nii lépp ña ngi koy saytu. Sénégal nag musta nelaw ci côté yooyu dañu am lu ñuy wax ay unité de antenne antenne de surveillance yi nekk ci région yi nekk ci département yi ba tax na bépp doomu jàngoro boo xam ne dafay indi lu ñuy wax épidémie dañ koy surveiller dañ koy surveiller d'ailleurs fièvre zone bi bokk na suñu programme élargi de vaccination ñuy ñàkk xale yi bu ñu amee juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer rek dañ leen di ñàkk contre fièvre jaune mais du tee nag mu am ay zone yoo xam ne da nga fa gis ay benn benn. incha allah fukki fan ak juróom ci weer bi daañu commencé euh, vaccination te dinañ vacciner juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama ci ñaari région yooyu. fièvre jaune grippe aviaire ba ci sax coronavirus lii lépp dafa tiital liggéeykat yi nga xam ni dañuy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom nag ñu ci bari ci ñoom bu ñu sañoon. jàppale gi ci war dinañ ko ci def ndax kat bu boobaa ñu gën a mën a toppatoo aji tawat ji. Maïmouna ñu ngi lay jaajëfal ñu wax itam ci centre de développement solidaire bi xam ne Aïssatou Cissé euh, moo ko jiite moom nag bokk na ca la ñu bëgg rek mooy fexe euh, ba ñi nga xam ne dañuy dund ak euh, laago ñu gën leen a fullaal gën leen a dooleel mu nekkoon ca diwaanu Gànjool doon tàggat ay soxna ci wàll wi ñu teewlu kàddu yi Ousseynou Diop ak Habib Seck nga xam ne ñëw nangu ci saafeen élément bi euh, jàppandiwul du ñàkk ñu dellu siwaat ci su ñeneen jataayu xibaar euh, ñu jeexale ak itam la xewoon ci États-Unis euh, d'Amérique ak itam Jibril Jool ak njabootam nga ñàkkoon seen bakkan ci daal incendie criminel ndax kër ga dañu ko daal di taaloon foofu ca Denver ca Denver ñi nga xam ne nag ñoom ñooy enquêteurs yi nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko faat muy ñaari gune Kevin ak Gavin Seymour Mour ñoom nag ay euh, ndaw la ñu daal loo xamante ne si euh, la ñu def rek mën nañ leen caa topp ba daal di ci daan leen ciy daan ñu ànd ci ak Cheikh Diop ci ay leexal enquêteur américain yi nag daal di teg loxo ñaar ci ñi nga xam ne rek njort nañ ne seen yoxo jugul benn yoon ci lakk-lakk wi nga xam ne moom moo amoon ci Denver ba tax Jibi Jool ak ñeenti ñooñ ci njabootam daal di ci génn àddina bu wii ak itam Gavin Seymour ñoom ñëpp daal di am ci lu tolloo ko fukki at ak juróom-benn jamono yi nag ñu ngi ci loxo yi yoon bu ñu sukkandikoo ci porte parole bu bureau bu procureur bu district bi nag dinañ leen atte ni ñuy attee mag ñi ñetteel nga xam ne itam njort nañ ne ba tey mi ngi ci wàll wi nag ñu ngi sàkku ñu daal di koy yóbbu fa ñuy attee ndaw ñi lañ del di toppee jamono yi nag daal di gën a diis jóge ci 28 jëm ci 60 mu ñeel wàllu cambriolage ak itam daal di faat doomi aadama waaye itam yoroon ngànnaay amal agression ak yeneen yoo xamante ni rek mi ngi xeetoo ci fàttali nag lu ni mel mu nga amoon ca seen ak foofe nga xam ne moom moo di ca Denver ci juróomi fan ci weeru août atum 2020 moom Jibi Jool ak ñeenti ñooñ ci ak njabootam nag nga xam ne jot nañ cee génn àddina jamono yi nag ñu ngi ñu denc ci sëkk yu ci fàttali ba tey li nga xam ne rek jàpp nañ ko mu ñel audience bi waxaguñ ko. aywa Cheikh Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leneen tamit euh, ci safo bi ak euh, kóolute bi Chérif Diop noppi na dëkk leen xibaar yi ci français desandi leen ak programme.